ngir fexe ba station benn yer bi set wecc dootu amati benn tilim tax na ay engins yu bees nag la li nga xam te ni mooy société d'aménagement bi daal di indi foofee Souleymane Ndiaye moom mi nga xam te ni mooy directeur SAPCO mi ngi dikkaat ci njëriñu engins yooyu yéen ñëpp xam ngeen ne wax dëgg yàlla tourisme balnéaire suñ koy wax vitrine bi sali la te la banque mondiale à travers le projet PDTE dafa accompagner état du Sénégal ba ñu mën a récupérer juróom fukki mètres si u Saly fekkee ne ñun jëluñ ay matukaay yu nga xam ne neen mun a def lu nga xam ne moom la ñuy wax la maintenance dineen def lu nga xam ne moom la ñuy wax la sauvegarde su boobaa wax dëgg yàlla avec érosion côtière bi mun neen ko pertaat te loolu day doon pertement bu mag si koomu réew ci visite bi nga xam ne mi ko doon amal ngir xool enjeu yi moom DG SAPCO nag daan na ciy pëttaxlu dikkaat ci coow li nga xam ne dox na ci diggante SAPCO Sénégal ak projet bii di Akon Sidi suñu dénkee SAPCO nag ñun amuñ parparloo xooluñ ma Masamba xooluñ Mademba luñ fay nekkee mooy lan mooy intérêt réew mi bu Sénégal ñun loolu la ñu sauvegarder loolu waral des fois ñu taper sur la table ne ah diw wax dëgg yàlla waroon nga def lii defoo ko lu tax defoo ko loolu rek la wax dëgg yàlla te moom war na fi ñëw lu yàgg ñu ngi koy xaar su ñëwee wax dëgg yàlla ñu waxtaan ak moom ñu xool lan lay teg si la table fekkee ne nag dem na ba nga xam ne moom mënul réaliser projet bi su boobaa nag SAPCO Sénégal wax dëgg yàlla dina utiliser lépp lu nga xam ne yoon may na ko ko. ci loolee sax moom jàpp na ci diir ñaari weer nag ci travaux yi démarré wu foofee ci Eco City li nga xam te ne mooy seen suuf si dinañ ko nangu jox ko ñi nga ne nii nangu nañ faa tabax ci fàttali rek ki nga xam ne mooy DG SAPCO nag ñëw gën doon def diwaanu Saly doon na xool li nga xam te nii mooy engins yooyu mais aussi daan na ci rek jaar daal di xool li nga xam te ne mooy centre ophtalmologique bu Saly centre bi ne mel nag nekk bu njëkk ci Afrique sowu jant te nag li nga xam te mooy pathologie yi gën a complexe foofu lañ koy fajee.